Euh, ci xam-xam laa mën a wax yow ci nu ñu ko jàng ci sunu maam yi ndax am na luy naan fangool xam nga loolu ñii di naan tuur sénégalais yi nag dem nañoo dem bi jàpp ne ku ne fangool yow doo jullit léegi jël nañu mbir moomu diabolisé ko ba ñu bari sax lañ daan faje ci maam yi ak li ñu doon dàqee rab yi sax gars yi léegi gëmatuñu loolu xam nga fi palaasu rab yi nekkoon respectetuñu ko lépp loo xamante ne moom lañ daan def pour faj nit ku dof ku rab jàpp ak yooyu yépp loolu dindi nañ ko fi xam nga donc ñu dellu encore di tooñ rab yi rawaan yi fi nekk yépp ñu ngi leen di tooñ ndax àll bi yépp gor nañ ko kenn seetatul garab goo xam ne garabu maam la woon loolu nag moo tax ma di leen leeral sarax yi ñu daan def gëmatuñu ko te dañ daan toog fii bu nawet amut ñu dajaloo ci benn garab def li ñuy naan baaw naan roog seen roog a deb roog seen roog a deb xam nga ñu koy def ba yàlla taw ci bés boobu waa garab yooyu nag bu ñu baaw naa la lu ci garab yooyu nag dem gor leen te defuñu fa leen bu ko defee nag dëkk bu ne dafa am ay ay mbir seytaane yi nga xam ne ñoo daan jóge ay Côte d'Ivoire ñi jóge Mali daan dugg si ci dëkk bi ñooñu nga xam ne protection yi daan def pour mën a dévier ñoo ñu def ngelaw dem géej loolu mënatuñ ko ndax amatu fi gëmatuñ ko moo tax lii ngeen di wax ay peine de mort yëpp du régler situation bi ndax jinn yi ñooy dugg nit ñi waaw parce que respecté tuñu aada ak cosaan bi fi nekkoon ndax lépp rek jël nañ ko teg ko ci mbirum diine mun la ne demal kër koromaak sax pour mu faj la wala demal kër Moussa mu faj la ñu ne kooku di jullit te nag ñiy wax loolu kat ci guddi gi dañuy yoxootu rek di ñaanlu loolu moom ci xam-xam laa la ko waxe képp ku la fi wax nii fii ku fi am ku fi nekk Sénégal am juróom-ñaari maam am na ceddo ci biir yow dina bëgg a wax ne ceddo yooyu yëpp daal kon ñu ngi safara nañu dellowaat xel yi te bañ a naxante di nit ñi lii amul lii amut ay problème rek la ñuy indil loolu moom ci xam-xam laa la ko mën a wax mm-hmm. waaw. mais euh, euh, loolu yéen ñi journaliste yi yéen ay moon di jotalee sarax yi mais yéen li leen gën a ñor ci ñenn ñi mooy mbër bii daanu na bii mooy daan bii mooy yéeg. xam nga politicien bi moy daanu bi moy yegg mom dal côté safan bi mom li ci gëna bari moy gëna moy gëna jall xibaar yoy mais sarax yi wara indi mbir mi mom ndax lan waxon ca battalo jola sarax yoy amna ay nit ñuñ ko wax bindu ñuko avant batu bi sux bindu nañ ko daaka bi liñ ci waxon ay kilifa ngi ni xam nañ lepp wax nañ len ko fi waye kenn sax da nga yewu suba bo waxe waxu sarax rek ñu commencé tegal ay addis te genn wàll bi teg addis yooyu yëpp bu guddee ñu ngi ci sëriñ di ñaan lu ci jeddo yeeg yooyu koo ci lam ndigam ah li ci gën a bari bopp kaña mu nga ca walla bopp tànn <laughs> mu yeewu ko lu leer nañ nañ nañ nañ laa la wax kon dang naxante bi rek moo fi bari ngeen baal ma ci wax ji donc ne leen di fexe bu sarax génneeti ngeen wax sarax boobu mais wax Sénégal moom dañ koy ñaw comme tisi xam nga da ngay récupérer li nga ca bëgg la nga ca intérêt wul nga bàkkoo fale bàyyi ka ko wax ci tojaange loolu aussi jafe-jafe la kon donc yéen am ngeen ci pas responsable ni ngeen di jotalee xabaar yi aussi ah tribunal ba xam nga dama faa jaar salaamaaleykum àdduna gi yëpp bind ma def ma bi presse ñëpp wax est ce que ba tribunal ba waxee koromaak am na dégg ndax bés boobu gis nga dara ah waaw loolu xam nga jafe-jafe la comme kii bu ne diw moo rëy diw boobu bu day wër àdduna te buñ ne nañu saraxe ah juróom-ñaari boolu ceeb nit ñi lekk ko yóbbu ko ci jàkka bi def ñaan kenn du ko bind dof sax lañ lay teg yooyu nekk ay jafe-jafe kon ci réew mi ñu ngi dund ci ay jafe-jafe yu bari mais sarax yi chaque jour ñu wax